nga encore une fois que sëriñ bu mat sëriñ bi yow doo ñaar ci kaw suuf yow kenn rek nga yaay sëñ Mbàkke Soxna ci sëñ Mbàkke Soxna kenn ku ne xam na ni la mu waxoon ba ba sëñ Mbàkke Mara wax ko fii ci ba ci ci fii li mu tëtti ci mbaar mi daal ni daal ni sëñ Mbàkke Mara ki ma defar moo defar Moustapha Moustapha ngi nii mooy Moustapha mu njëkk ma ñun nag dañuy yeesal suñu njëbbal yeesal suñu jaayante ak yow wan la ne liñ lay wax lépp mooy suñu dëgg su ñun lu waay am ca du sëñ Moussa Mbacke Mohamed na ko téye loo am duñ ci doyal lañu yow loo am rek jox ñu xale yi nag ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu xale yi àndal mag ñi moom mag ñi moom du ma leen wax ku mel ne Ndiogu Fall ak sëñ Massila Sylla ak ñoom ñooñ am Moussa faal ñoom Ousmane Loum Baye Mor Gueye ñoom Baye Mor Gueye fan yee passé dafa ni mag la mu ni jën bu nekkee ci géej ba ne doyal naa ndox maa ngi génn ci biti bu génnee xam loolu moo ko dal moo tax mu ni lii da ciy liggéey ba booba kon ñoo xam ne ñun mag ñooñu lañ am mag ñooñu mel noonu lañ am gone yi tamit wax naa la ko daaw soo gisee baas bu mel nii transport bi dafa yokk lépp a yokk suñu lépp a yokk ñu ngi sant bu baax transport bi mu yokkoon nag wax naa la ko daaw dafa am suñu ne suñu ne 4000 francs la ñuy def waa social ak waa organisation dañuy def ni ku andi 2000 ñu yóbbu la waaye nag condition mooy bokkal ay baaxaadim solol sa tenue solol masque bu dee comme tey ñu ñëw nii ñoo xamante ni daal ñoo ñu ko liggéey liggéey dafa gudd dafa may a guddal waaye ñun ñu ngi jaayante ak leneen li nag mooy jigéen li ñoon wax sànq ci suuf ci noonu mën nañu koy yëkkati ca kaw mooy lan mooy Cheikh Moussa Mbacké fu ñu toll tey ëllëg nga gis ñu nga ba ñoo gis ñu ngi sa liggéey bii nga xam ñépp xam nañ ni yow yaa ni moom tey yaa ni moom ëllëg kon nañu loolu lañ lay wax yaa ni moom bu nuy dund ak bu nuy dee yépp yaa ni moom Cheikh Moustapha yaa ni moom bu nuy dund ak bu nuy dee yépp yaa ni moom ngoog léegi nag ngeen ñaanal ko jaajëf jaajëf waaw leneen li mooy ab jullit ñaan lam ñun ñëpp ay jullit lañ ay murid lañu yaakaar sëñ Tuubaa yaakaar ko moom mii nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool na dund ba doyal na dund ba ni suñu borom doy na sëkk moom mii nañ ko ñaan sëñ Moussa Mbacké ku fi nekk na ko wax Cheikh Moussa Mbacké moom yàlla na fi yàgg te ànd ak wér maa ngi jégalu ko tey suñu xol fees na sëñ Mbacké sëñ bi bi ñu jaaree njaareen bi ñu jaaree barke sëñ Tuubaa sëñ bi waaye reetaan bi nag na mën naa ko eh, na mën naa ko macha allah doy na sax. jërëjëf sëñ Cheikh kon ñu jox kàddu gi waa section Kaolack bisimilah sëñ Tall. sëñ Cheikh. kon ñu maasee dégloo noonu ñu ko waxee woon rek sëñ Cheikh Diène jërëjëf euh, li ci rax lépp jàpp nañ ne mënu ci woon a ñàkk kon nag ñu ngi ñaan suñu borom dolli bu baax a baax kon ñu jox kàddu gi Alaaji Talla président section bu kaw Kaolack bismillah auzu billaahi mina seytaani sëñ Mudu Mustafaa nun kat daanaka liñ waroon wax sëñ Cheikh Mbacke mii wax na ko benn kàddu dong la nun ñëpp nii nu sëñ bi nase nga xam ne koo gis gis nga sa bopp loolee moo moo am solo daanaka tey jii mën a naa nekk benn kàddu man be loolu laa waxal Cheikh jenn ma ne ko nañ ko def benn kàddu rek nga waxal ñëpp waaye Cheikh Moustapha nu de loolu seex jenn na alhamdulilahi rabbil alamin nu de wax nañ ko miil milliards fois ngir yow sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax tinkiwaat nga lislaam bu baax a baax a baax barke sëñ Tuubaa lislaam tënku woon na tinki nga ko sunu xol sedd na guy guy guy foo jaar ci dëkk bi ba njaareem daa mel mel ni seen xol yi ni mel mënees koo wax nu daal sunu xol sedd na guy guy ñi ngi ñaan nga yàgg fu suñ kanam lool ñi ngi ànd ak nag sa représentant Cheikh Moustapha Diop ak euh, soxna Abikan ci njiitul soxna yi waaye nun tawatun jamono ndax am nan la képp ku la am ta gore te xolam laab tawatut jamono tawatut dara dara léppam yëwén na man loolu laa gëm man taala ku la am te xolam laab tawatut dara ci jamono ji ndax léppam yëwén na man loolu laa gis loolu laa dund man daal maa ngi ñaan nga yàgg fi lool noo ngi ànd ak suñ mboolem suñ membre yi daayira yi Saalum gépp ak siin ñëw nañ doon ay jàmbaar dooni gor yoo xam ne nii yow rek la ñuy déglu ak sa bëgg koo ci woon ni ko nangam bu dee guddee ñëw na bu dee bëccëg ñëw na du ma ta du ma lim na benn daayira ndax ñëpp a ngi fi sant nañ yàlla bu baax a baax di ñaan nga yàgg fi suñ kanam bu baax li ma ta wax Cheikh Jenn wax na ko jigéen ñaa ngi ñuy góor ñaa ngi ñii ñaanal nu lépp loo bëgg sa bëgg doo nga leen dig loo bëgg yàlla na ca daal man koo def na nga ko bëggee barke sëñ Mburum Saa sant yàlla bu baax jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa kon ñun ñëpp section yëpp nañ maase déglu kàddu yi sëriñ bi su ko defee ñu toog section bu ci nekk itam sa jëwriñ dina la wax soo fi jógee fa ngeen di dajee ca dal ya ngeen mën faa dajee asalaamaaleykum sëñ Moustapha bisimilah. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi wa akramil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin habibillahi al amin al makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri qadimihi ahmada ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki taalibe yi fi teew yépp noo ngi leen di jottali nuyoo Cheikh Mahamadul Moustapha muy section yi fi teew ci ak kawla ak Mbour ak cees ak mboole ñi mu fi fekk ñépp sëriñ baa ngi di nuyu bu baax nee na mi ngi leen di jot itam ay cant yu kawe ci pas-pas bi ak ci pasif bi nga xam ne moo laltaay seen jëf ji tey ba ngeen ñëw fekk ko ci barab bi nga xam ne mooy barab bi gënal sëñ Tuubaa ci ay barabam waaye it ngeen fekk ko ci béréb bii nga xam ne moo gën a sëñ Touba ci ay bérébam muy daaru xudduus ndax sëñ Touba moo bind wax ne daaru xudduusi li rabbil aalamiina mursili ahmada sëñ Touba moo ko bind nee daaru xudduus moom ma ko borom bii liggéey ko kon fekk ngeen ci ko ci ngën ci béréb muy Touba waaye fekk ko nag ci béréb bi gën a ci béréb bi muy daaru xudduus nee na mi ngi di sant baax di leen gërëm di leen jaajëfal baax ci liggéey bi waaye leen la ci jitu na ngeen xam ne sant leen cant boo xam ne ab yamukaay bi du ko am mukk ba bañ gisee sëñ loolu loola mooy lan mooy liggéey bii nga xam ne amul moom te wóor na ko ne jumtukaay mënut a ñàkk te moo di jumtukaay bi parce que bi ngeen ci def ak pëstéef bi ngeen ci def ak yitte ji ngeen ci def sëñ bi nee ne bu leen sikk sakkane kenn ku nekk ci yéen la nga def moo gën a te jàpp jàppal na leen lool leneen la ca des mooy tawfeex ji nu suñu borom defal defal ko bëggee ñëw ngir bésu sëñ Tuubaa bi lëg na na ngeen xam ne altine jii di fukki fan ak juróom-ñett ci Tamxarit daa tombe waat képp ak altine joojee di fukki fan ak juróom-ñett ci Tamxarit ci aana woon sa si 1927 bis bii jël sëñ bi wàcc woonu liggéey ak altine ji waxtu bii may wax ci yéen sëñ Modou Moussa nga ñaareel borom kun téléphone Moustapha ba ñaareel la sëñ jógee Kayal jaar Touba jaar Tindodi ak fi jaar fépp Darou Mouhty ba ni mu booba ak lam xam xam na ko jaar ci sëñ Si la ñaareel fa fa la fanaan guddi tey jii altine bis bii ci la sëñ Modou Moussa doon xalifa général bi bis bii ci la sëñ Modou Moussa doon sëñ Touba altine joojee la ko sëriñ bi def mu fanaan ñaaxeen xëy talaata ja muy suba ba mu àggee joxe ndigal lam ji lam diggee ñu ca guddi ñu andi ko Tuubaa muy guddi suba jëriñ bi kon bis tawféex ngi di jox ne sëriñ bi da nga xam ne kay ko kon neen la nan nan santaat yàlla nee na ñu ngi dénk nan gën a dëgër ci li mu ne ci pas ci pësté ci lépp lu baax nee na fu ngeen gis lu baax man fexe bu nu ci kenn man ci jaamu yàlla ci ragal yàlla ci pëstéef ci di wax lu baax te di ko def ci wattandiku te li leen liñ la séddee muy sa ndab te sëñ Tuubaa wax ko fu nekk kenn ku nekk am na lu ñu la tànnal nun moom la ñu tànnal kon nee na liñ leen tànnal da ngeen ko téye bu baax a baax nee na guddi gii nga xam ne moom la dëgmal bi guddi tawféex la boo xam ne sàllaaw ku xamoon li ci ne bu doon lees mën a wax fu way nekk ci adduna loo mën a jàpp da ko jéem a bàyyi ngir teew fii bi kon nag ko yàlla defal tawféex nga teew fi sa cant ci suñu borom wërtu amul tàmbali waaye wërtu am fenn fu mu yem kon nee na nan nan nan ci santal yàlla te fas yéene ko fanaane bu ëllëgee xasida siñ Sëriñ Tuubaa yi ak alxuraan bi ak tur yàlla wun man nan ko nan ko maase ñun ñépp di ko def ba ba bët set ndax Seex saa lam ca garanté woon ba ba ba jàpp ne mooy bi ci gën a ndaw bu foogoon ne buy ndaw am na mooy nee na suba ku fi fanaan boo ko seetee da ngay mel ne ku seet da ngay mel ne a adduna kenn gisul ci adduna fenn benn barab wala fenn bind ne fii day far bàkkaar Cheikh Moussa moo toog wax ko mag ñëpp ne sëñ Tuubaa xamal na ko bokk na ci mën a xamle sëñ Tuubaa xamal na ku fi fanaan bët seetee nga seet ci ay kon moo tax sëriñ bi wootee ko nii ci pas-pas boobu ci pësté boobu ndax waxoon naa leen fii ne leen moom ne yërmaande nekk ci moom joo xam ne kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah yéene na loolu moo tax tuuti fii sëñ Tuubaa ji bëggul mu raw kenn ba tax na ko nee na nañ ko nañ ko def ci pëseeb te yéene ci nag ku dib jullit nekk gi nekk fii tawfeex suñu borom bi yaatu loolu nee na ku dib jullit nan la ci yéene waale fu waaye nekk ci àdduna nga ne la bis bi fekk la foofu nan la fonk alxuraan bi fonk xasaay yi baax te xam ne la sëñ boo xam ne man xadama aw zaara fa najjihi wax fir lahu aw sara loolu mooy bés bii képp koo xam ne liggéeyal nga ma wala nga siyaare ma yow suñu borom musalal ko na mucc àdduna mucc àllaaxira loolee mooy lii rek jógu fi benn yoon kon janoo gi nu janoo ak moom mu toog ci suñu biir dimbali nañu kon nan santar yàlla dolliwaat suñuy pas-pas dolliwaat suñuy pësséef te xam ne Cheikh Moussa moom lii mu digle mbir maa ngi nii lii mooy mbir mi mbir nii mu santaare mbir nii nan ci téye baax baax baax nan ci téye bu baax téeméeri loxo te def ci lu man def ci suñu temps bépp ne ko jàkk ne ko dal lu dul moom nag buñ jàpp sax kon na nee na sant na daal baax positif yi ngeen def ci liggéey bi fu fi mën a nekk te nan xam nag ne buñ jàpp ne danoo ne ci moom mu far waaye danoo ne ci moom rek moom mu nekk fi déedéet sax wax waxtu yëpp ci ñun la ko ne lu nu dimbali ak lu tax nu yaram ëllëg lu nu dimbali ak lu tax nu raw ëllëg rek mooy yitteem kon nag nan ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te wér lool ba li bëgg a lëgal sëñ Tuubaa mu la yëg ndax moom day wax ne man taalibe sëñ Tuubaa la day wax ne man ab murid saadex la te loolu mboole wàkk sëñ Tuubaa yëpp seere nañ kon nag murid saadex boobu mu bëgg doon ak taalibe sëñ Tuubaa boobu mu bëgg doon nañ ko ñaanal son borom mu may ko fan bu ko wér goo xam ne lu bëgg lëgal sëñ dana ko ko liggéeyal ba amee ko na ko bëgg kon nag nee na na xel yi dal na xol yi gën a sedd na njott yu rafet te xam ne mbir yëpp dana jub te dara du jib incha allah ci barke sëriñ Mouhamed Mbacke wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin amiin Mbacke آمين يا رب العالمين آمين